na li nga xamante ne moom la ñu jàpp ni moo ca jiitu laata muy antu Amadou Ba na faaw ñu daal di ciy wax lépp li nga xamante ne ñeel na doxalinu réew mi di Sénégal waaye tamit Ousmane Sonko jox ko ba noppi li nga xamante ne yor na ko ni ay document Sonko ci boppam di ko tontu tamit ci ab bataaxal ni ki démb ne li nga xamante ne moom Amadou Ba def na ko ni ay ndëngte ak ñaawteef ci jamono ji muy nekk ci nguur loolu yëpp kon dinañ ko fësal ci débat bi mu nekk li Walf Quotidien jàppee ni kon passe bi nga xamante door na ba noppi ay jokkalante kàddu yi nga xamante ne ma ngay am jamono ji diggante Ousmane Sonko ak Amadou Ba diggante ñaar ñi nga xamante ne liggéey boole woon na leen enquête quotidien mu nga yëgal ni kon ñaari style yu war a wute la ci débat bi nga xamante ne kon moom la ñu jàpp ni moo war a am muy gulat ci wàllu politique ci Sénégal ndax ci benn fànn ba amadu Ba jàpp nañ ni kon ab gestionnaire la bi ñu ràññee lool war a jàkkaarloog Ousmane Sonko di ab juriste contestataire ñëpp ràññee ko tamit ci wàllub defante leneen li tax ba suñu naataangooy jàpp ni ñaari style yu wute la moo di kenn di am Amadou Ba système bi lay incarné ka ca di Ousmane Sonko moom anti système la mu nekk nag ab xëccoo politique bi nga xamante ne kon enjeu yi war naa bëri lool waxuma la enjeu sax waaye l'info yéenekaay dafa gis ni caw li ñu bëgg samp diggante Ousmane Sonko ak amadu Ba nekk na ab débat bi nga xamante ne dafay muur Macky Sall ak Barthélémy Diaz yéenekaay bi di xam la ni kon donte débat bi boo moytu sax du am ndax li ci nekk ni ay gàllankoor waaye tamit CNRA mi nga xamante ne àndu ca tax na ba premier ministre ak nga xamante ne moom mooy njiital jàmm ak jamono ji ñoo fës lool ci actualité bi wuute ak Macky Sall ak Barthélémy Diaz moom Bart bu Ndakaaru bu yóbboo mu waajal boppam ndax Bilal Diatta ci biir yor-yor bi mu ngi koy dànqaafu responsable Pastef bi yàq ko lu mel ni xeme ci yéenekaay bi ba noppi nekko dootul nangu mu yëkkatee kàddu yu ñagas jëmale ko ci njiitu réew mi Bilal Diatta di ko jox sax rendez-vous fanweeri fan ci weeru octobre bi fas yéene defante léegi ak doomu Jean Paul Diaz bi waa Pastef si seen bopp di defante ak seeni njiit li ko waral nag le témoin yéenekaay jàpp ne du dara lu dul ñu tabb Samba Ndiaye PCA SNHLM loolu nag tax na ba biir parti bi jamono ji malaise dëgg lañ fa nemmeeku Vox Populi mi ci àddu nee na kon li ñu tabb Samba njaay pression bu rëy la teg ki nga xamante ne moom mooy Bassirou Diomaye fay ndax goney Pastef yi lu ñuy sàkku mooy ñu jëlee ko ci PCA bu SNHLM moom Samba Ndiaye bi nga xamante ne jegeyoon na lool Macky Sall lu nekk tamit mu yekkoon ko ki nga xamante ne moom mooy Ousmane Sonko yéene kaa bi di xam ne sax ab pétition bi nga xamante ne démb waxtu ñaar fukk ak ñetti junni signature ñëpp di sakk ñu dàkk Samba Ndiaye mu mel ni Samba Ndiaye moomee persona non grata la ca Pastef bu ñu sukkandeko ci les échos yéenekaay bi di xam le ni am na ci sax ay responsable ku ci mel ni Guy Marius Sagna Waly Diouf Bodian Abass Fall ba ci sax Tahirou Thiam naka noone dex Top ñëpp ngàññi nañu tab gi nga xamante ne njiitu réew mi Bassirou Diomaye Faye def na ko Samba Ndiaye Diomaye Faye ak Ousmane Sonko fës ci xët bu njëkk l'Observateur yéenekaay ne moo jëm ci seeni rôle maanaam ku ci nekk li nga xamante ne moom mooy say pouvoir mu mel ni ba léegi coow laa ngay woy ndax suñu naataango yi gis nañ ni gulët ci Sénégal histoire séddale pouvoir bi moom ñu daal di koy gisee nii dara waralu ko nag lu dul ab premier ministre bi nga xamante ne fës na lool te am doole societé civile bu Sénégal mel ni ku tàmbalee ñàkk dooleyam ndax Sud Quotidien dikk na ci jaar-jaar bi ba fi ñu toll ak li nga xamante ne am nañ ko ni ay jafe ba ci sax yenn saay seen taxawaay ci wàllu politique ñu di tudd yenn saay ci ay mbiru bonne gouvernance ba ci sax seen taxawaay ci wàllub démocratie ci boppam loolu léegi am na lu ci soppar bu ñu sukkandekoo ci yéenekaay bi beneen yéenekaay la Soleil di addu ci li nga xamante ne moo jëm ci secteur BTP di yëgle ni kon bor bi ci biir réew mi muy dette intérieure moom ñoom ñoo ca gën a sa ndax ña cay yëngu xayma nañ ko ci ñetti téeméeri milliards ci suñu koppar concurrence bi tamit ak biti réew mu mel ni métti na lool ba tax seeni activité sax ci biir réew mi dafa tàggatémbe Ahmed Ndoy nekk ci diggante gu tàggatémbe ndax libération mu ngi ñuy xamal ni démb daan nañ koy denc gardaaw yi ca gendarmerie bu Sébikotane lu ñuy toppee chroniqueur bi bokk na ci dawal te amul permis ba noppi gaañ nit waaye tamit jëfandikoo ay document yu baaxul libé fësalaat ci beneen fànn enquête bi nga xamante ne dañoo jàpp ni mujj gi action commando la jëmale ko ci Dieynaba Ndiaye yéenekaay bi di xam ne ni kon Mayacine Gueye di juróomeelu suspect bi nga xamante ne jàppoon nañ ni génn na réew mi mujj nañ ko teg loxo ni ki démb docteur Alioune Badara Mbacké ak ñi mu àndal ñoom ñoo toppoon Dieynaba Sangara Ndiaye teg ko loxo fitnal ko ñoom ñëpp tey ji la ñu war a janno ak procureur Rewmi People janno ak artiste bi di Jay 21 mu doon indi ay tontu ci jaar-jaaram mbébétam ak ni mu def ba dugg ci aar bi moom mi nga xamante ne ab manager la woon ba tey ji muy wane boppam ci wàllub rab bi équipe bu Sénégal but choc wane boppam ni ki démb ci kanamu Égypte mi dalal Coupe d'Afrique bi record yéeni di nettali ndam li nga xamante ne sunu gaynde yi am nañ ko ni ki démb ñaari bal ci benn tax ba ñu qualifié ci final bi war